asalaamaaleykum mbokki internet Ndougoum Ndougoum TV ginnaaw ba leen nuyoo di leen ziar di am mbégte di leen dalalaat seen bi nga xam ni moo leen di jox information yu wóor saa su nekk bés bu nekk li gën a fas yéene kaay yi dañ koy daal di door ak ak. actualité people di wax ci jëmm ji ngeen di gis di Ameth Thioune gis ngeen ko fan yi ñi génn polémique bi nga xam ne moo dox ci digganteem ak moom ak Wally Seck Ameth Thioune nag bi mu génnee waxaatul ci Wally Seck waaye ma ngay wax ci politique ndax jamono bi ginnaaw la gis kii di Ameth Thioune nag ci politique bi gis ngeen ko démb di Wally Seck daal dinay génn muy match bi doxoon ci ak timu bongo man bi ginnaaw ba ma si jeexee nag Wally Seck daal ay kàddu mu di kàddu yu rafet waxut benn kàddu bu ñaaw jëmale ko si jëmm ji di Ameth Thioune waaye moom Wally Seck mu ngay soññaat ne bépp ndaw boo xamante ne yaa ngi si dara gën koo téye bu baax a baax lii moo gënoon fës yéene kaay dañ leen ñaan ngeen abonné bés cloche notification ndax mboolem vidéo bu ñu dugal ngeen mën see jot si lu gaaw jaa ngeen jëf